poto sa nka wa fi hundred dollars la kani poto bara mun ko kano wo mol ka sanne every day ah ala tentu muka ko chala wa fu jam samo samo 55 mulu be 55 ha jahato do jahato 10 dollars abe ka bojanne fa ka bodula do ha ngani do do kunna kankan lo kono wala na nga sero siande pour mol sa sanno ha ñin do on tata wulo lo kono nga ñini nanje ngawo fanan betiyandil pour hannim be boy la je kana wara walla moolu fana misilimolu see baluwa la ha kucam faŋa la ŋa wo do ko sokuta ha bata eh, ñiŋ waafiro ah, bata ku te je a bata kuwo mu ñene ti kayi ko ka fo doroŋ niŋ ŋa katina ŋa samanaŋ tuma do a jari ka tariya bari tuma do saani a yorata ñaame a ka tariya le ka saŋ ha du niŋ ye a beteyandi fanaŋ pour dimbaa la baluwo ye a seero beteyandi a ka tariya le ka saŋ ni niŋ jama baa le naata bari ñiŋ danmaa le tuta je hake ngam ɓaɗugol mako ele ka seroɓe to yande nit bi dañ ko dee jënda ñu defar ko ñu togg ko waaw walañ koy indi fii na ba jaay na daf dee miti trop nag wante nag xam nga nit ki li nga min jaay moom doo ko mun a bañ waaw. suuma bi moom ñaata la ñu seet naka nga koy ban mooy ban ak price si. 35 bii twenty bi twenty mooy bii waaw bii mooy thirty five bii three dalasi bii ten dalasi bii five waaw dafa mel ne netatu léegi yokku na de waaw yokku na fu mu nekk nii parce que price bi moo ne seer war a yokk waaye bi xanaa dafa dafa laal si vaat bi lan moo tax mu seer paas bi moo seer ba pare boo jaayee ba pare yenn doo si dee am dara yenn nga am si dara waaw moo tax mu affaire bi xaw a seet noonu tuuti rek karesi bu kadi ko jaabe say lafita aliya foñe ñi ka waafi jelu e jow ni noo muri bu kanak iri nguja ba seseer yo ni noo mew ña iri nguja ni kaanu kabanan the long-awaited Subconnect TV show live on GRTS. Njela Mincham, the Rinding Subconnect TV show. Wow, Gani yena kulun late yeksina. Lu safte sap, you connect Aduna live from Banjo. Lu safte sap, you connect with the wall. Dembe Washington DC, ALD, Yenalan. July 4 London Carnival, Guinea-Bissau, Ndakaru Njai, Nigeria. sponsors are welcome. Call DRTS Marketing to be connected with SAP Connect with Lamin Champion. Thinking about the future is everyone's business. And that future includes a property well located with facilities that guarantee a better life for you and your family. Universal Properties is the property partner for all your property needs. Our properties are well located and carefully selected to match your taste and style. Truly Gambian, Universal Properties prides itself with experience in the property business with excellent client-to-customer relations. Universal Properties is full of staff with vast experience, knowledge in real estate companies, whom all their lives they have been into real estate. We have land available for everyone, both the Gambian in the diaspora and home you can contribute as little as 100 pounds or 100 dollar wherever you are you can pay that every month to get a land in the Zambia here remember however you stay away one day it's a trip to go home and then we are here to give you that chance that day to to, to arrive in your own home di am dañ bëgg provider pour each and every ñu ngi wax nekk liñ soxla yow rek nekk contract ngay sign you need a photocopy of ID or passport, then with two passport size photos, then a little deposit then Visit Universal Properties today on FIB building along the Keraba Avenue. Universal Properties, your innovative property solutions providers waa mbokki xarit yi di leen welcome artists. another week of Saf Connect every Wednesday wax naa leen wax leen ko seen nine o'clock Fila, JRTS. GRTS connect leen ak powerful satellite You connect leen to the world ak seen xarit Lamin Cham the poor people's governor mbaɗugol nin kanintel ngal ɓe konto ngal buña aral bo tol 9 o'clock alka jiatres jiɓe saf connect the people so welcome min ka jang min safta molen ka wole tan diyalla nga bondale jannin na satellite la nga kiyale bantala banko kan albadugol nin kanitel min beba bantala banko ka e ka jibe wole ñama ngalon ko gambia la diya gambia la kayro wo bijan safkane woto bimba mine kala jita pencami hol ngata fatu gewel jibe je anin uh, gambian women's min yalon koye tolla sammana jan nin parera bitala duplex night club semestale mi organise dj lil sisko ka faye ko all white party wala moɓe fenkoyo dum momo nota woto wotinala o bendula to moɓe white alenanan je en oji ɓe comme boki haaditi daño dem capen cami hol jeka ñi setan fatou guewel gudiɓe mag bu nga xam ne ay jigéeni gambiani ñoo ko organise ñëpp sol sen africaine kola siang fo bari loolu ñu de ñu dem foofu setan fatou guewel guddi boobu nag sanjar bi lambul lañ wax kooku nag kenn du lamb ku dem ut jabar rek den la war a may jabar loolu la Fatou Gueye wax noonu ah kon nag boobu dina naaj <laughs> si toppale ñu foofu nag xool leen suñ caméraman yi ne leen dem penc mi Fatou Gueye ak gaay sininkamani kana fo mume kana sininkam fo kalimoyoma sininkamani fansimba parengen man vivian de parena ñëw naa kandilay ndax yéen dama bëgg ngeen ñëw ñu fecc ñu foo diree yéen ñu bégal leen mu neex ku bëgg lu baax kaay fii ku bëgg leneen neel nii ñu am mbégte di ko dalal kii faatu Fatou Guewel waaw faatu Guewel ana mista Mbaye fa ñu ñuy seetaan saf ko ne waaw maa ngi nuyu ñuy seetaan saf ko ne ci ay Ah, ah, naka sa Christmas bi ak sa New Year bi noo ko prépare xanaa kontaan rek ci Christmas bi ñëw fii ci Banjul defe ko fii bégal si leen ci kàttanu yàlla lu ma kontaan la ndax Gambia suma réew la ñu ma koy waxee toujours Gambia ak Sénégal maami benn lañu ndox mi ñu xaajale waaye ñoo bokk dër bu ñuul bi ñoo bokk suñuy maam ñoo bokk lépp ba tax na maa ngi leen di wax bonne fête yal nañu yàlla def ñu fekke ko ay déwéni déwén yàlla def ci Gambie ak Sénégal jam ak salaam sunu président yi yàlla defal leen jàmm ci dara jooy nañ ci barke Sëñ Touba nga nekk koo xam dafa da nga yàgg si musique torop ah, la su ma la bàyyee pour nga advice Gambian musicien Gambian yi artiste Gambian yu ndaw yi nga gis ak ñu mag yi lan nga mën a wax waaw ni ma ko mën rek li may joxe exemple ci kii di way nii muy jaliba woykat la bu mag fii ci Banjul man moom mooy sama woykat soo ñëwee sama kër képp ku ma xam ci ba Europe fu may dem kasetam laa yóbbu dëkk bu ma wàcc damay jënd rajo ndax jaliba dëkk bu ma wàcc naa jënd rajo bu am CD pour teg ko pour jënd waaw sama kër dama koy déglu ba nelaw su ma yeewoo bu ma dégloo samay xasaayit ba pare Jaliba laay déglu à part alxuraan rek Jaliba laay déglu waaw waaw muy woykat bu mag fii ci Gàmbi prouvé li muy def nag am ci fulla am ci fayda àdduna bépp xam nañ Jaliba waaw di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm woykat yi ci ginnaawam topp tamit xale yu ndaw yi ñu xool ci ñoom ku ci mel ni ñoom Samb Suusoo ñooñu ñëpp ñu xool ci Jaliba